la ñu nekk bitim réew nañu ko dakkal lu mooy loole danañu tas parti bii di Pastef loole moo tax am mboolem yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo xëy di wax ci Ousmane Sonko ba tey ci biir journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom dañoo waxoon seeni militan ak seeni militant ak seeni sympathisant ngir ñu dajale ay koppar yoo xam ne danañu ci financer seeni parti maanaam di si def ay activité loole di ab campagne boo xam ne waa Pastef dañu ko lancé woon waaye nag ñu gis ne ay heure yu néew rek millions yi ma ngi jàbba jonge lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay millions yoo xam ne waa parti Pastef fa dajale nañ ko ci lu gàtt-gàtt loole ci boppam journal bi ne na moo tax ministre de l'intérieur gaaw génne ab communiqué di ko tere waa Pastef fa loolee nag tax na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama yëkkati nañu seen kàddu ku ci mel ni maître Assane Dioma Ndiaye nee na ministre bi nga xam ne mooy Antoine Diome li mu wax ak li mu def tegu ko fenn Ousmane Sonko jamono ji ci waru garam la nekk te nag texte bi nga xam ne ministre bi génn na ko amul benn yoon boo xam ne xaajale na ko sénégalais yi nekk fii ci réew mi ak sénégalais yi nga xam ne moo nekk bitim réew li nga xam xam moom la ñuy bañ maanaam mooy ku dëkkul ci réew mi di financer ay parti yu nekk ci réew mi waaye nag sénégalais bi nga xam ne moo nekk ci bitim réew am ko neex yéen a kaay gi di réew mi ko dëjee ñu fekk fa Cheikh Bamba Dièye muy naqarlu bu baax baax communiqué bi nga xam ne Antoine Félix Diome génne na ko moom Cheikh Bamba Dièye nee na su am na ñenn ñoo xam ne ñoom la ñu war a wax mooy waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñooy jël alalu réew mi di ko pasa pasare di si def ci lu jëm ci war a waxal Cheikh mujjee na Sénégal neex na waaye nag ñii ana fan la ñu jëm ak ñoom ah Ousmane Sonko journal bi nee na dafa mel ni li Antoine Félix Diome wax yëngalul Ousmane Sonko ndax waa Pastef démb génn ñu beneen communiqué daal di ñaax seen i militant ak seen i militante ak seen soppe ngir nag ñu gën a daal di dàbbali mbir mi ngir gën a mën a dajale ab koppar ba kenn laal leen ah yéen a kaay gii di li quotidien ñu xëy fekk fa Ndiaga Sylla mi nga xam ne ab expert la en démocratie ak lu jëm ci wàllum élection nee na nag lii nga xam ne gis na ko ci communiqué bi nga xam ne Antoine Diome génn na ko mooy deux poids deux candidature te nag ki nga xam ne mooy Macky Sall moom defoon na ko fi ci atum 2011 jàpp atum 2012 Macky Sall fii la doon sàkku ay koppar ngir nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi yéen a kaay gii ñu fekk fa Biram Souleye Diop mi nga xam ne ci Pastef la bokk nee na su am na benn parti boo xam ne moom la ñu war a tas mooy parti bii nga xam ne mooy APR ndax Macky Sall moo ko fi njëkke Biram Souleymane Diop ne caaxaan yi nga xam ne moo am ci réew mi na a dakkal a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal la ñu ko rey ci yi ndax dañu ko vaar dañoo vaar Macky Sall ci atum 2011 jàpp atum 2012 Macky Sall gis nañu ko fi muy sàkku nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi dem na sax bay sàkku ay koppar ci nag njiitul réewum Gabon yéen a gi ne na Macky Sall ci boppam démbam daf koo dappa yéen a kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa avocat di Maître El Hadji Diouf nee na askanu Sénégal war nañoo wax ak Macky ndax Macky fa mu jëmee réew mi baaxul ndax am na benn ndaje moo xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko dajee woon waaye Macky Sall lam fa waxoon mooy nañu def suñu dëbbal dëbbal ak suñuy pexe ba ak kat élection du fi am te bëgg-bëggu Macky Sall boobu jamono ci moom lañ gis ne moom lay doxala Maître El Hadji Diouf moo ko xamle ci yéenekaay gi di La Tribune journal bii di Vox Populi nee na bu yaatu boo xam ne gars yi ñoo ngi ngir na xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu mandat ñoo ngi ko tuddee M24 yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy na ci lu jëm ci wàllum location bi ci réew mi ak loyer bi yéenekaay gi ne na état bu Sénégal bëggoon na ci andi ak jubbanti waaye mbir mi dafa gën a dëng ndax ak arnaque ak naxaate gu rëy moo ci am ñi nga xam ne ñooy courtier yi ak bailleur yi ñoo ngi rey ñi nga xam ne ne ñooy luyee ba tey ci biir journal bii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa mari taw ñaan mi nga xam ne ay jamono dénkoon nañ ko lu jëm ci wàllum njàng mu kawe mi jamono ji mooy PCA bu Petrosen daan nay wax ne candidat la ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci diwaanu Ndar nee na Ndar gii ca Saint-Louisien yi ñoom ñoo war a tànn ana kan mooy nekk seen maire moo mari taw ñaan ci biir yéen kaay gi nee na Sénégal ba mooy amee indépendance ba léegi élection locale yu ñëw dañu koy dàq jamono ji nag war nañoo tekk ab agenda électoral bu dëgër boo xam ne dafay indi stabilité ci réew mi bu ko defee Sénégal mën a liggéey ndax gis nañ ne Sénégal liggéeyul la ba tey ci yéen a kaay gii de la sa xëy na wax ci woppi coronavirus atum bi ni mu commencé neexul la ndax am na lu toll ci fukk ak benn yoo xam ne faatu nañ ci wopp ji enquête yéen a kaay nee na xalif général des Mourides tey ji ci altine ji santaane na njàngum alxuraan ngir nag ñu daal di ñaan mbas mi jóge fi di covid 19 yéen a kaay gii wal fajëri nee na atum 2021 bi ni mu commencé si askanu Sénégal neexul ndax li nga xam ne mooy diwlin gi diw gi ko cadeau nouvel an yéen a kaay gi nee na Edouard Mendy jamono ji cat moo ko topp wala défense